asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dalak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg bi bàyyi ko QTV ak Q Radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu ko li ñu seeti bopp xibaar yi ministre Fatou Kinte ci talaata bi jiite na yenn kilifa pour génte ab banqaas boo xam ne naka dañ ko taxawal es pour mu xeex naka lu jëmee ci yelleefu nit ñu dee tukki di bayeekoo ci biir réew mi di dem sa bitim réew ku jiite banxaas bi seetu wàllub dem ak dikk bi moom wane na ñàkk kontaanteem jëmale ko ci nguurub Gambie bi ne bu fekkee naka nguur gi deful naka seen bëgg-bëgg ñoom naka dinañ toog seen i kër yi ñàkk dem liggéey ba tey ci bopp xibaar yi chief bu jaara West mi wiyo si Yaya Diadio si moom doonoon na koo xam ne nag baaraami tuuma yi bari joxoñ nañ ko ko ci kanami kuréelu TRRC bi lu jëmee ci yàq àqu ak fi doomi aadama si njeexantalu semaine bi Yaya Diadio si moom yegg na ci dëkk bu ndaw bu ñu naan Diarra Sikunda pour jéggalu nit ñoo xam ne nag ñooñu la tooñoon mbokk yi li doonoon bopp xibaar yi ñu taaxilu te dellu si waat yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi suñu xibaar bu njëkk mu ngi dem ci ministre bi seetu wàllu jigéen ñi wàllu góor ñi tout tànk yi seen àq ak seen yelleef mi wuyoo ci faatu Kinte ci talaata bi moom jiite na yenn kilifa pour ngente naka banxaas bu ñu tuddee national referral mécanisme mu doon banxaas boo xam ne daka dañ ko taxawal pour aar nit ñu dee bayeekoo ci biir réew mi di tukki di dem ci yeneen réew surtout ñoo xam ne naka dañ leen dee forcer pour ñu tukki ñu doon ay tout tànk ëmpale wuñ ne doomi gambien yu bari si jamono ji naka ñu ngi bayeekoo ci biir réew mi di dem sa bitim réew pour daani seenub doole si jamono joo xam ne naka ñu ngi lijjanti mbirub tukki bi ñu si bari naka dañ dee dugg ci loxo yoo xam ne naka loxob njuuj njaaj la ñenn ñi naka dañ leen dee forcé pour ñu dem tukki ji ñu leen jaay ñenn ñi naka ñuy yàqalu aju seen ak ak yellef ñenn ñi ñu leen dee dugal ci mbirub cagatu am si ñoo xam ne naka dañ leen dee forcé boole leen ci mbootaay yu fi fippi banqaas bi kilifa yi taxawal es muy national referral mechanism doon na banqaas boo xam ne nag mbootaay EU e bi ak mbootaay bi saytu wàllu tukki bi ñoom nag ñoo lëkkaloo ñu taxawal nag mbootaay bi pour gis ne nag aar nañ lu jëmee ci ak ak yelleefu nit ñoo xam ne nag dañ dee bàyyeekoo ci biir réewu Gambie bi di tukki di dem ci beneen réew yenn mbootaay yoo xam ne nag ñu ngi dugal seen loxo ci mbir mi ñu si mel ni nag nguurub Gambie bi ak mbootaayub IOM bi mii ñoo xam ne nag ñooñu la ñu dénk wàllub tukkib ndaw ñi si jamono ji nag ñoom ñu ngi lëkkaloo pour def seen kéemtilaay kàttan gis na nag aar na ni ñoo xam ne nag ñooñu la ñu dellu si waat ci biir réewub Gambie bi te ñu tukki woon kalifa yi ñu ne neexul nag pour jàppale nit ñoo xam ne nag ñoo dellu si waat ci biir réew Gambie bi ndax nit ki moom mënoo koo defal lu mu bugg yëpp waaye nag nañ def seen kéemtulaay kàttan pour gis ne dimbale nañ leen ci anam buñ ko manee mbootaay bu ees bu ñu taxawal ñu jël ko rek lëkkaloo si ak nguurub Gambie bi kilifa yoo xam ne nag ñu ngi liggéey ci banqaasum nguur gi mbootaay bitim réew yi ak nit ñoo xam ne naka ñu ngi xeex lu jëmee nag ci àq ak yelle doomi aadama jéego bi nag ñu jël ko rek pour gis ne aar nit ñoo xam ne nag dañ dee tukki di bàyyeekoo ci biir réew mi dem ci beneen réew surtout ñoo xam ne nag dañ leen dee nax bu ñu tukkee ak it ñoo xam ne nag ay tuut tànk leen ci matuwaay bi ku ñu naan Corrado Pampaloni mu doon EU seen ambassadeur bu toog ci biir réewu Gambie bi ak Richard Pascal moom mu doon naka US seen ambassadeur bu toog ci biir réewu Gambie bi ñaari kilifa yi yëpp naka wax nañ seenu matuwaay boo xam ne naka ñu ngi ko fas yéene jël pour gise naka xeexle nañ bootaay bu ñu samp es gise naka taxaw nañ lu aju si àq ak yelleefu nit ñi dee tukki di génn ci biir réew mi ñu ne lii naka nañ si boole nit ñoo xam ne naka dañu dellu ci waat ci biir réewu Gambie bi surtout ñoo xam ne naka dañu daj torox tànge si jamono yoo xam ne naka dañu tukki woon IOM seen i ku leen toogal ci biir réewu Gambie bi mu doon chief of mission bi moom wax ne naka taxawaay boo xam ne jël nañ ko ñu bindi ko ci ab xaatim dina doon biir boo xam ne naka ñoom kilifa yi neen gestu nañ ko bu baax te naka wécci wante nañ si xalaat mu ne waaye naka mu ngi jaajafal kilifa yoo xam ne naka ñoo bokkoon ci waxtaan wi ci matuwaay boo xam ne naka jël nañ ko si jamono joo xam ne naka ñu ngi xeex mbasub coronavirus bi ci biir réewu bi ku taxawal ci tànk Anthony General bi ak ministre bi seetu wàllum njub gi mi wuyoo ci Toulaye Diawara Cissé mu doon koo xam ne nag mu ngi bokk ci mbootaayu agency bu dee xeex lu aju naka ci wàllum jaayum nit. moom wax ne ne mbootaay bu ñu taxawal es ràññee nañ liggéeyum nguur gi ak banqaas yoo xam ne naka nekkuñ di liggéey ci ron nguur gi ñu ne jéego bi naka ñu jël ko rek pour gis ne aar nañ lu jëmee naka ci àqu ak yelleefu nit ñi surtout ñoo xam ne naka dañ leen di dugal ci toroxtaange bu ñu tukki faatu Kinte moom mu doon ministre bu ñu dénk wàllu góor ñi jigéen ñi ndaw ñi ak seen yelleef moom naka wax na ne ministre bi naka si jamono ji ñoom dinañ tàkk seen i tànk tibéy gis naka lëkkaloo nañ ak kilifa yi liggéey naka ci mbir moo xam ne boobu la ñu taxawal mu ne ndax naka dafa jot pour ñu jàppale nit ñoo xam ne naka dañ dee yàq seen àq ak yelleef si jamono yoo xam ne naka ñu ngi leen yóbbu sa bitim réew ministre bi mu ne am na yaakaar ne mbébét boo xam ne naka ñoom kilifa yi am nañ ko pour wal mbootaay bii ne boobu mbébét dina yegg ginnaaw réewum Gambie bi nag ñu ngi taxaw teem mu di xeex nag lu aju ci wàllu tukki te fekk neexul la wala sax ñiy jaay nit ñoo xam ne naka ay doomi réew yi Gambie leen ñu ne naka matuwaay boo xam ne naka jël nañ ko pour taxawal mbootaay bu ñu samp ees nii nekkul mbir boo xam ne naka boobu la ñoo mujj a def waaye naka liggéey la boo xam ne dafa bokk ci liggéey yu fas yéene def pour gis ne naka nañ lu aju ci àq ak yelleefu nit ñoo xam ne naka dañ dee tukki di dem naka sa bitim réew ñu leen di forcer ñi dugg naka ci mbir yoo xam ne neexul leen mbokk yi bu ñu bàyyeekoo ci xibaar boobu ñu dem seeti nag uh, ku ŋànk banqaas bi saytu wàllu dem ak dikk bi ci ndaje boo xam ne nag am na ko ak liggéey mi moom wane na ñàkk kontaanteem nag jëmale ko ci nguurub Gambie bi mu ne bu fekkee ne nag nguurub Gambie bi mataluñ nag matuwaay yoo xam ne nag yóbbu nañ ko ci ñoom xamal leen ne nag mbir yi la ñu soxla ñoom nag si jamono ji fas yéene nañoo dem toog seen kër ñàkk dem liggéey yi booba la xibaar dañ ci ànd ak Biram Es Diop mu yaatalal ñu ko executive ak représentatif bu General Transport Union ñu bëri gën ko xamee si Gambia Transport Union muy kuréel bi nga xam ne moo dali boot képp ku nekk dawal ko oto fii si biir réew bi Gambia te seen jiit bi si mu nekk muy Omar Cissé ñoom nag ñoo amoon ab bataaxal bi nga xam ne bindoon nañ ko mu waroon tool toll si fukki ponk ak ñaar te fukki ponk ak ñaar yi nag ko bindoon pour jëm a ne pour nguur gi sax muy bunti liggéeykaay nguur gi ñu amee muy wàllum dawalkati oto yi fii réew mi ñu war mun am nag seen liggéey suñu gën a mun a nekk di yombee moo tax ñoom ñu ne ñu nga xam si boppam nag ay weeri weer ñu ngi am nag yenn waxtaan pour jéem a seet ni ñoo war a mën a nekk di am naka taxal si diggante muy dawalkati oto yi ak muy nguur gi ak askan bi nga xam ne askan bi duñu war a am benn façon jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñoo jànkuwanteel rawatina sax mu nekk di aju muy paas bi ak borom oto itam dinañ xam si boppam nag ni ñoo war a mën a nekk jëflante ak ñi nga xam ne si boppam ñooy naa nekk dawal seen oto yi rawatina sax muy jafe-jafe yi nga xam ne mu nga baaxoo di am si ko trafic bi moom Omar Cissé mu ne kon ñoom si boppam moo taxoon ñoom ñu jiite muy wàllum transport fii si biir Gambia ñu bindoon ab bataaxal ne ko sàkk ko si nguur gi pour nguur gi jéem a seet ni ñu koy war a mun a nekk di ko doxalee waana mu ne nag si boppam nekk depuis si weeri maaj si at bu nekk nii ñu ngi fas yéene pour war a mun a am naka nangutoo nar ko war a jëmale si nguur gi ak taw muy président réew mi ak ñu nga xam ne ñoo amee muy ministre bu amee muy wàllum transport ak bépp ministre bu nga xam ne su boppoon nag seen liggéey mu ngeen nekk di ak wàllum dawal oto fii si biir réew yi Gambia mu ne ñoom nag si fukki ponk ak ñaar yu nga xam ne bindoon nañ ko nag laaj ko nguur gi nguur gi nag ñoom wax ne ne duñ fa war a mun a defar yëpp nag waaye dina am war a toll si benn si yooyu ponk ponk yooyu nag mooy ponk yi nga xam ne la nguur gi bugga pour gis ne dañ war mun a nekk ko def ñoom na ñu ne gannaaw nga xam ne nag toog nañ ay weeri weer di jéem a xaar nguur gi pour nguur gi war a mën a seet si yenn si bataaxal yi nga xam ne bindoon nañ ko ne jox leen ko wala nguur nekk di leen tàqamtalu nag di leen a nekk di leen nasaxal mbaa sax nekkoon xam ne moom lañ bindoon jëmal ko si nguur gi pour nguur gi a seet nuñ ko war a mën a di ko safara bokk nañ si yenn sàkkutee fi nga xam ne sàkkoo nañ ko si nguur gi nag mooy ñu jéem a seet naka la nguur gi di war a mën a jëlee nag ay garas nag samp ko si biir réew mi pour garas nga xam ne oto yi dañoo jékoo si ab garas daw si beneen garas nga xam ne dafaa war a mën yombal muy dema dikk si wàllu muy nit ak askan bi ñaareel ba tam ni ñoo war a mun a yokke ne paas bi def ko mu nekk ñaar fukk ak juróom ñetteel bi nag mooy ni war a mun a wàññee muy wàllum fay bi foo na si Trans-Gambia Bridge muy jàlluwaay bu nekk si diggante Yilitenda ak Babatenda nga xam ne su nekkee nit ki mu doon fay téeméer dina foo wàññi lu war a toll si fanweer ñetteel bi nag mooy ñu jéem a seet ñoo war a mën a baaxoo di indi lu gën a xamee si kiwin système muy ab rang rang bi nag mooy képp ku nga xamee si boppam ne sa bagaas nag indil nga ko fii si biir réew mi nat ko war a mën a jàllale si poori Gambie pour mu war a mën a dem si beneen réew nga xam ne dafay rang wax ne du am ne dafay am ab dugu dugg mbaa dafay am fu mu war a mën a nekk jaaree te nag loolu am na jafe-jafe nga xam koo jéem a àggee borom bagage yi ak oto yi nga xam ne ne ko fii si biir réew mi ñeenteel bi tam mooy ñoo mën a baaxoo pour jéem a génne muy képp ku nga xam ne nekk nga client nga nekk si biir oto nga dem si frontière réew mi nga xam ne si boppam su fa nekkee client bi di war a fay benn butuut ndekte oto bi si boppam nag mu ngee fay teg nekkoon na loolu bu ko neen tampal nguur gi seet ni ko mën a nekk di ko génne bokk na si ponk yi nga xam ne moom la Gambia transport union bindoon pour nguur gi seet ni ko war a mun a nekk di ko àggale si fukki ponk ak ñaar nga xam ne bindoon nañ ko mu ne kon nag ñoom moo tax ñu bindaat nag muy fukki fan si weeru ogos muy si ay fan yu ndal weesu nag jëmale ko si nguur ne pour jëm a wax ne nguur gi nañ jëm a def seen kémtulaay kàttan pour jëm a àggale muy yi façon yi ama joote waaye nag mun ne si nekk na nguur gi si bopp nag ñu ngi tànqamtelu nangu ñoo topp nag nangu ñoo na nag jàppale leen si yi façon yi joote yi nga xam ne si boppam ne njëriñu askan bi la ak njëriñu borom oto yi njëriñu tam muy dawalkati oto yi la kon mu ngi mel ni comme incha allah muy fukki fan ak ñetti si weeru septembre bi nga xam ne moom la war a dégmal si dañoo def lu ngeen a xamee si sit down strike maanaam benn oto du daw fii si biir réew mi moo xam mu nekk muy taxi bagage mbaa mu nekk oto bu eb client mbaa mu nekk oto yi nga xam ne ñoo jëlee fii bagage nat ko war a yóbbu si bitim réew te nag loolu si boppam ñee suñu demee ba ko mën a commencé duñ jëm dawal oto fee nguur gi nag matale wuñ li nga xam ne moo nekk yooyu façon yi jubluwaay moom nag mu nekkoon nag Gambia Press Union ñu ngi fas yéene pour jëm a seet ñu war a ubbi nag seen i buntu pour ñu gis ne dina jëm a waxtaan ak ngur gi si lépp lu nga xam ne moo nekk aju si wàllum njëkk ak taranga waaye mu ne njëkk ak nag dafa am na fu mu em te kon nag fu mu em nag mooy ne leen jëm a topp nag si boppam nag déggal leen jéem a ñëw nag indil leen lépp lu nga xam ne moo nekk di aju si yooyu façon yokkute nga xam ne si boppande si njëriñu askan bi la njëriñu borom oto la ak njëriñu dawalkati oto yi moo tax QTV naka ñoom façon eneen pour jëm a seet ñu mun a demee nag pour jëm a waxtaan ak li nga xam ne moo nekk ministry of um, transport pour jëm a seet xam ñoom ñi naka la gaa di war a mun a tonto si yi façon jubluwaay waaye nag loolu mënu doon a antu nag ndekte incha allah rabi ñoom préparé nañ pour gis ne dina jëm a continuer ak ñoom si lépp lu nga xam ne moom la tontu di war a amee si yooyu fanna chief bu jaara west mi wuyoo si Yaya Jaaju si moom nag si njeexantalu semaine bi yegg na nag si dëkk bu ñu naan jaara Sikunda sa foofu nag ñu bari ñoo xam ne teewlu woon nañ ci kanami kuréelu TRRC bi joxoñ nañ ko baaraami tuuma ne bokkoon na ci ñoo xam ne nag dañu yàq seenub àq ak seenub yelleef moom Jaaju si nag ànd na ak kilifa yoo xam ne nag ñoo ŋànk kuréelu TRRC bi pour dem jéggalu nit ñoo xam ne naka ñoo toog sa jaara Sikunda Chief Yaya Jaaju si moom ba mu teewloo ci kanami kuréelu si bi ay weer ci ginnaaw pour tontu naka ci tuuma yoo xam ne ñu ngi ko teg ci koom moom naka dafa dàqulu tuuma yooyu ba mu des benn mooy ne moom dafa tànnal jaara sikunda ab alkaalo te fekk naka neexulu leen mu ne loolu leer na ko ne doon na ab mbir boo xam ne naka antuwut ak luwa te naka moom nangu woon na ne moom moo def loolu mu sababu naka ñu jàpp si ñenn ñi tëj leen naka ci kaso ga ci ndaje bu ñu def si jara jaara Sikunda kilifa gu ko jiite naka muy chairperson si kuréelub TRRC bi muy ci Oumam Jallow chief Yaya Jaaju si moom naka jël na waxtu bi pour naka jéggalu nit ñoo xam ne naka ñooñu la tooñoon mu def leen naka mbir yoo xam ne antu wutoon ak luwaawu réew mi si làmmiñam moom chief Yaya Jaaju si mu ne maa ngi am mbégte ak kontante ci dajalo boo xam ne naka def nañ ko fii ci bésub tey bi maa ngi jël waxtu bi pour jéggalu leen yéen ñi nga xam ne naka tooñool naa leen mu ne it mu ngi jéggalu ñàkk a déggoo goo xam ne naka am na ci biir dëkk boobu mu sababoo naka ci mbiru politique mu ne ñu ñaan yàlla façon yi naka bu mu amati tamit maa ngi jël waxtu bii pour gis ne naka jaajëfal naa kuréelub TRRC bi ci bunt bu ñu ubbil pour gis ne naka ñun ñoom ñu dajaloo fii ndax ma mën a jéggalu ñi nga xam ne naka ñooñu laa tooñoon mu ne TRRC bi mu ngi def liggéey bu baax maa ngi leen di jaajëfal ci liggéey bu rafet bu ñu nekk di def ci biir réewub Gambia bi bu ñëwee ci wàllu alkaalo bu dëkk boobu muy wuyoo ci alhaaji Mansa Jammeh moom naka ci làmmiñam mu ne nangu nañ naka jéggal boo xam ne naka Chief Yaya Jaaju si def na ko mu ne naka tooñ boo xam ne defoon na leen ko ay at ci ginnaaw jéggal nañ ko ko mu ne lii la jullit war a def mu ne lépp loo xam ne naka xewoon na ay at ci ginnaaw moom ak waa dëkkam jéggal nañ ki nga xam ne naka mooy ciif Jaaju Si mu ne bii doon na yoon wu njëkk moom mu ubbi gémmiñam mu wax ko waaye ci seen biir xol yi jéggaloon nañ ko lu yàgg mu ne jéggal nañ képp koo xam ne rek tooñoon nañu ci ron nguurub express den Yaya Jammeh mu ne ñun ñu fi toog nii bayeekoo wuñ ci benn dëkk waaye ñun ñëpp ci benn district la ñu nekk mu ne am na yenn mbir yoo xam ne naka waruñ di ko nangu muy am naka ci suñu diggante mu ne waaye naka maa ngi leen di xamal ne jéggale nañ te tamit jélale nañ commissioner Imam Diallo moom ci wàllam mu doon chairperson bu kuréelu TRRC bi moom mu ne ndaje bi naka doon na ab mbir bu bokk ci taarix mu ne naka Chief Yaya Jaaju si doon na ni koo xam ne naka dafa laa biir ndax nangu na ne tooñ na tamit jéggalu na. ñeneen ñoo xam ne naka gaaral nañ fa seen kàddu ku ci mel ni commissioner Kinte bu TRRC bi ak yeneen kilifa yu dëkk ci dëkk boobu ñoom ñëpp jaajëfal nañ naka commissioner TRRC bi ci matuwaay bu ñu jël pour jubale leen ñoom ak waa dëkk bi. bu ñëwee naka ci wàllub aada ak cosaan gi bu waaye demee bay jéggalu dafa war a indi naka guru mu tax naka chief jaaju si yóbbu naka ab boo xam ne naka mu ngi ci def guru jox ko naka waa dëkk bi muy wane ne moom lu mu def ñaaw na mu ngi koo rëccu tamit mu ngi jéggalu ci nit ñoo xam ne naka ñoo nekk di yeewoo sa dëkk bu ñu naan jaara sikunda mbokki suñu xibaar mujj mu ngi dem ci dëkk bu ñu naan Kololi mu nekk ci biir Kombo gi ñii naka ñu ngay jooytu ñàkkum ndox ci seenub diwaan gi ñu ne naka ñàkkum ndox bi yàgg na di fa am ay ati at ci ginnaaw si jamono ji naka askan woo xam ne ñu ngi dëkkee ci boor yooyu ñu ngee joytu di ñax askan wi képp koo xam ne rek mën nga leen a dimbale ci wàllum ndox nga jàppale leen askan woo xam ne nag ñu ngee yeewoo ca diwaanu Kololi si jamono ji nag ñoom ñu ngee méttulu ñàkkum ndox goo xam ne nag moo nekk ci seenu boor ñu ne nag daanaka lu mut ñaar fukki at ak ñaar ñoom ñu ngi ci problème um ndox te nag at mu nekk daf dee gën a bon Marie Koka moom bokk si ñoo xam ne naka ñu ngi yeewoo sa diwaanu kóolooli gi moom naka xamal nañu ne jafe-jafe goo xam ne naka ñu ngi koy jànkuwanteel ci wàllum ndox mi dafa yàgg mu ne bu mënee fàttaliku ay fukki at ci ginnaaw ñoom ñu ngi si jafe gi te lii naka doon na mbir boo xam ne mu ngi continuer mu ne ndox ab jafe-jafe la ñoom ci seeni boor yooyu mu ne boo waree boor yu nekk ci biir kóolooli fépp foo dem rek di nga fa fekk pompe waaye pompe yooyu amul ndox mu ne nawet nekkuñ di ñu jàppale te weer bu nekk naka ñu isi seelu kayit bi nañu fay ndox Mrs Koka mu continué di wax ne ñoom seen jafe-jafe gi joytu nañ ko sa nawek waaye ba tey ñëwuñ def si dara mu continué di wax ne alkaalib kolo liggéey man suma bopp aka Mr Thiam Thiam doon koo xam ne naka moom moo amee booxool bu ñu amutee ndox naka sa foofu lañ dee rootee mu ne jël nañ naka ay matuwaay ay yooni yoon pour dem naka sa nawet mu ne waaye naka ba tey lu ñoo joytu naka nanguñu ko saafaraal Binta Jaaju moom it mu doon koo xam ne naka mu ngi yeewoo sa diwaanu Kololi moom mu ne mu ngi oo nguurub Gambie bi pour ñu jàppale leen mu ne ñu ngi oo nguurub Gambie bi di leen xamal ni ñun ñu nekk ci diggub Kololi gi amuñu ndox mu ne ñun suñu boor fii nii sa booxool yi lañ dee rootee ndox te naka bu fekkee ne courant amut booxool yooyu duñ dee am ndox. ku ñu naan jaaraa jaaju moom it muy yeewu sa diwaan googu benn joytu gi la def di wax ne naka ndox seenub jafe la mu ne ñoom naka sonn nañ torop ci at yi ñu nekk. mu ne foofu ndox mi num dee ñëw ak dem dafa bon yenn saa dañ dee eewu xaaji guddi pour mun a root ndox bu ñoo jëfandikoo mu ne mu ngi oo groupe Gambie bi pour mu jàppale leen seenub dëkkandoo yoo xam ne naka ñoo am ñoo ñu ñoo leen dee jàppale pour ñu root guddi mu ne ñun mënuñoo def dara ci ginnaaw ndox mënuñoo togg ci ginnaaw ndox te naka du ñu naan lenn lu dul ndox mu ne suñu boor fii pour am ndox mooy jàppee sax jafe-jafe la maa ngi ñaax ñëpp ñu jàppale ñu bii naka doon yoon bu njëkk QTV di doxantu naka sa diwaanu kóolooli gi mu aju naka ci biirum ñàkkum ndox bu ñu fàttale ko si weeru mars atub 2020 muy at bu ñu génn yeggoon nañ sa piaro bu nekk ci banxaasub nawet gi pour waxtaan ak moom ci jafe goo xam ne naka dëkkub kóolooli gi ñu ngi koo jànkuwanteel jëmale ko ci wàllum ndox mu xamal ñu ne dëkk yëpp yoo xam ne naka ñu ngi ci diwaanub komb gi ak i Banjul ñu ngi jànkuwanteel jafe-jafe ci wàllum ndox te ñoom seenu banxaas bi ñu ngi def seen kémtulaay kàttan pour gis naka jàppale nañ askan wi fii ba balaa newek naka di jëlee matuwaay pour jàppale askan wi naka lu jëmee ci wàllum ndox askan bi yeewoo ca dëkku Polooli gi ñoom naka nañ continuer di jànkuwanteel jafe-jafe ci mbirum ñàkkum ndox gi. mbokk yi mu ngi noonu xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal yi ngeen di doon ànd ak Xadijatu Collin di la jaajëfal ci ànd di ñaan yàlla mu may ñu ñeendoog jàmm jërë ngeen jef ci ànd bi wasalaam.